voilà asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñu ngi leen di siyaar yéen ñi safoo seetaan Click Dakar 221 tey nag bi ngeen xam ne ni ñëwee tey euh, dañu xaw ku nekk xam na ne macha allah euh, li xew ci réew mi ku nekk gis na ci te ne seen bët tey nag muy métti boo xam ne moo wër adduna ñu boom ki nga xam ne mooy Aziz Dabala ak ki nga xam ne moo di jarbaatam di yi seen benn appartement boom leen boom boo xam ne rek adduna ma tëddee bu métti boo xam ne. àdduna ñoo ko uh, ànd uh, ñu boom leen depuis uh, dimanche ba mardi si li nga xam ne moo di koor bi presque dañoo yàqu bi ñeen di denc muy métti boo xam ne foo ko nag rek àgg na ko waaye nag tey dañu ñëw ginnaaw bi ñu xam ne boom nañ leen teg nañ leen loxo tey yóbbu leen garde à vue tey mandat dépôt tey nag ñu ñëw toog nga xam ne tey ñoo xam ne dañuy gis loo xam ne idéal di ko gis muy ay setkat waaye itam muy di ñi nga xam ne dañuy yëngu ci li nga xam ne wàllu maraboutage te ñu toog ko xam ne dañ ko présenté àdduna parce que toog nañ fi ak moom ñu ci jafe-jafe réew waxtaan ci li nga xam ne mooy saraf réew mi waaye itam waxtaan ci li nga xam ne dara di war tuur ci réew mi mu lancé ko le président Diomaye yi nga xam ne mooy président de tous les citoyens muy kan soxna Mariama mu Serigne Babacar Sy la grande voyante nga xam ne yaakaar naa seetam dafa leer naññ lépp lu mu wax ci seet xamal ne takkal téere xam ne loolu mooy am ku nekk xam na ko bitim réew États-Unis Angleterre Canada Italie fu nekk lay am ay clients di seetal ay nit waaye itam rawat na fii ci Sénégal moom lañ tey seet si tey tey mu war a waxtaan moom war a waxtaan moom ci li ne moo di kaa bi waaye itam waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy sarax yi rey bari na te waxul na ko fi yàggul dara mu ñëw dikke nii. kon dañ koy waaye dafa mel ni maa ngi fekk mu yor ay xaatim euh, di bind li nga xam ne moo di ay xaatim ku nekk xam na moom saa su ne rek euh, macha allah moom day nekkal yàlla pour dimbali jàmm yàlla dama ko bàyyi mu nuyoo rek. dafa ne tey dafa aalu na ne waxoon na ko waaye maa ngi fekk ay sondel yu euh, rouge itam soxna si ngi lay ziar. bismillahi rahmaani rahim a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk di nuyu Sénégal àddina war a jotee ñu ngi leen di nuyu Idaali tey ñooñu mënta gudd ndax sama xol dafa tàng. sama yaram dafa tàng sama yaram dafa daw ndax ray bi day bëgg a bari ci Sénégal. waaw diggante trois fee rey ñett nit. waaw loolu warul nekk fii ci Sénégal la. ndax Idaali booy xool dañuy rey ba rey ay jigéen ay ndaw ay ñoo xamante ne innocent lañu xale yoo xam ne xamuñu dara. Euh, ginnaaw bi ñu rey Aziz Dabala ba tey ginnaawam dafa tàng ci ay rey. te loolu bu amee ci dëkk rek mauvais signe. allahu akbar baaxul ci dëkk deret bu bari day indi bekkoor day indi dëkk boo xamante ne day bari fitna. waaw day indi dëkk boo xamante ne dafa bari fitna idaani lu mat weer rey nañ fi lu mat juróom-benn nit. fii ci réewu Sénégal. ñëpp ay ndaw lañu. ñëpp ay ndaw lañu ndax ki njëkk a rey Grand Yoff ñu reyaat fa beneen chauffeur Grand Yoff reyaat beneen tuut tànk reyaat nit nit jarbaat bu rey nijaay bu rey jarbaatam. Mhm. xam nga yooyu su amee ci dëkk rek daanaka ñëpp a war a génn wax ndax dañaan bés wax bu jotee ku waxul rek doogoor mais idaani deret bi bari na. deret bi bari na rey jii bari na taw alerte woon naa ne président Diomaye na génne sarax ndax am na loo xamante bu amee rek wax dëgg fa neex yàlla moom mi njiitu réew moom fi yàlla teg moom moo war a def sarax yooyu ndax moom la ñu jiital ci réew mi kon su yooyu amee day mel ne comme nit ñi maanaam concentration amatul kenn amatul jot ñëpp a ragal tey ku ñu sone sa kër mbaa nga am appartement sax visinaa nga léegi nga taxawaat sa matuwaay ndax li tax yi daan ndegam dañ lay fekk sa appartement daal di lay buum rey la fan la mujj ña nga ca kaso ba dañu ko rey tey moom ma ca baas sax te xëy na njaay dundam amoon na njariñ lool ci Sénégal boo gisee ma taal sondeel yu xonk yi ko waral idaani ndax day toll foo xamante ne ni yow da ngay jihaat da ngay jaayanteeg sa borom nga ñaan yàlla dëkk bi dal mais dëkk bi bala muy dal denc sa woon. denc sa woon ndax waxoon na génne sàrxu gëléem yi doonte ne tar na nekk ci jàmm. waaw akbar. gëléem yi li mu gëléem yi lim bi lim bi bari na torop waxoon naa ko ci émission bi passé te dinaa ko waxaat ndax gëléem yooyu dëkk ci safar ndax dañoo nekk ci jamonoy nawet. jamonoy nawet te nawet bu nekk am na lu muy laaj te nawetu ren bi direct lay laaj bakkan lay laaj. allahu akbar nawetu bi direct lay laaj bakkan lay laaj. ci fee li nga xam ne mooy rey yi bari na mais tey rey yi nga xam ne tey wër na àdduna muy reyu Abdou Aziz Dabala mu ngi noonu ndeysaan xaw ma yor jël bu ruut ci ko ñaan dugal ko ci ndox mi allah akbar allahu akbar tey même Aziz Dabala ñu fekk ko ci appartement faat ko ñu ko def euh, ñu ngi jàppagum lim mu set personnes benn jigéen nekk ci en tant que rek Aziz Dabala tey ni mu ñaawee yow euh, lan nga ci wax tey waa xanaa mer ndax Aziz Dabala dafa nekkoon koo xamante ne bu waxee nit ñi déglu ko bu fekkee ñi nga xam ne dañuy seetaan fecc dañuy bég am na ñu ko doon bégee ba pare mu nekk ci chien de famille kon ku mel noonu suñ ko rayee dafa mel ni société dafa mel ni guy gu daanu dafa mel ni rek yow mi fondement sa kër rek ba wax ko mu daanu fi mu toll ni Abdou Aziz Dabala noonu lañu ko brûlé maanaam ray boo xamante ne waaye fii Sénégal li fi waay di def defal te xamante ne léegi toog muy dox jeex na mais def itam tey nga tëdd ca kaso ba suba nga génn di traîner di jeex na fi lu waay di def na ko xam ndax fi mu toll lépp a président bu bees dëkk bu changé maslaa amatul ndax ñee tëdd ca kaso ba maa la ko wax ko wax mhm. nañ àtte seen bopp ñaari at ña nga tëdd ca kaso ba seen dossier ñoom dem tey tëdd ca kaso ba kon nga xam ne léegi dëkk bi caaxaan faaxe caaxaan faaxe dëgg rek am mhm. ndax euh, idaal mhm. li gën a metti ci àddina gën nga gis façon bi am de ñu dee ñëpp génn ñi di mars ñi dem taxaw ci buntu bi tribunal bi li leen fa yóbbu maanaam façon rey bi est ku jigéen ki ñu tudd Nabou Leye ndax moo def mbala deful jàpp ñu la de jàpp jàppuñu ma de. Mhm. te jàppuñu ñu fi toog yëpp xam nga mhm. yoon du topp ku deful. waaw même dee sax da fa jaar rek sa trajet feeñ rek dañ lay tëj ñu dëkk ci kër ga da gis ñu entendre kenn da nga gis ñu jël ci tëj ci kenn moo tax gis nga xam nga lu ma bëgg. nañ bàyyi caaxaan bi te dellu ci yàlla. allahu akbar ndax peine de mort moo toogoon wax ko fi loolu tax ñu mere ko nag rey ko ba mu génnee ne xale ba ñu rey ca Pikine depuis boobu ci lañ ko ayal. booy xool wax foofu la jógee trois jours la ñu teg ñu rey Abdou Aziz Dabala kon la nekk ca biir la nekk ca suuf. Mhm. sëb la tu ko amul baatin doo ko gis mais dama ne. kon am na lu nekk ci suuf. am na lu nekk ci suuf. waaw di nga ne am na lu nekk ci suuf. am na lu am na lu des. am na lu des ndax li tax li ci suuf mooy lan. Mhm. dañ see tudd Nabou Leye. waaw. te namu Leye lanu Abdou Aziz Dabala la. doomam léppam xarit intime. xamal ko bi ki xam sa biir xam sa biti. ñu tudd ko ca bu ci laalu takk na ca. ndax yoon du jàpp ku deful yoon du topp kuñ deful hmm. rajo Abdou Aziz Dabala bii man daf ma metti ndax ni am jamonoy élection campagne lañ ko gëj a gis mooy temps Sonko jamono yooyu li am ni boobu nga ko gëj a gis ñëpp a woon ci jàmm ñëpp a woon ci salaam ñaata nit lañu rey mën na fukk weer bi li ñu ci rey mën na fukk xamaloon mais ci reyin bi reyin bi xamaloon da am mais reyin bi lu ñu préparé sept personne yor ay paaka dix minutes jam ko plus de douze paaka ba pare encore reyaat xale bu ndaw bi tëj leen appartement loolu mosul am Sénégal quand même. xam nga avant ñu leen rey am na xale bu rey moromu xale ñu wëlbatikuwaat démb xale bu jigéen bu am quatorze ans euh, ñu tudd ci xale bu am quinze ans ne loxoom jógu ca rey ba. Mhm. kon barki démb toog naa dégg benn seetkat mu ne ay rab yu wàcc si dëkk bi la mais du rab xabtal la. xabtal ak drog. drogué dafa drogué yi léegi dañoo bari Sénégal ak xabtal am na ñoo xam ne dañ leen di xabtal am na ñoo xamante ne dañ leen di booy def doo ko tey boo téemee nit di koy rey doo ko xam doo ko tey dangay mel ne nit koo xam ne tant que defoo yow ci la la xabtal bi di xiir moo tax boo amee sa doom bu nekkee xale dee ko tette di koy ñaanal di koy tette di koy ñaanal xanaa xamul yaa war dund amul lu mu saafara ci xale mooy gàllaaju xale nga di koy def neuf fois di koy tifli ci sa bopp doom di koy tifli ci géem ñam boo def sa doom du tox du laal ci dorog bi kenn du ko xattal te kenn du ko liggéey te kenn du yàq sa doom moo tax ñett xale da nga koy tette mu nekk xale muy màggaaleeg loolu di màggaaleeg loolu bés su màggee du jaaxal ndeyam du jaaxal baayam moo tax nit ñi dañoo war a xam ne dëkk bi li fi nekk yàlla. mais mais bi est-ce la parce que rey boo xam ne da que ñi jàpp tey dañoo rey ba pare Abdou Aziz dem def tëjee ba pare toog seen kër ndaw ñu police seen kër leen fekk. nangu lay tey en fait ñu ngi ne complice la këram lañ ko fekk comprendre nga ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk famille daw ñu encore keneen ki ko rey pare dem ci tonton ne ko rey naa nit tonton ànd ak moom màggali est tam lu tey quand même. Euh, tonton kilifa bu ko waxoon fii mais dafa ba yegg Touba wax ko tonton tonton dem dénoncé ko am na ñoo xam ne drogue la wax day leer am na ñoo xam ne dañ leen xabtal am na ñoo xam ne nag dañoo drogué wu ba xamatuñu fu ñuy taxaw ndax nee naa fi daañu dëgg. façon drogue yi façon suuf si ñu fi doon dégg yëpp amu fi amu fi woon mais su fi amee c' est que am na loo xam ne bu ko nit jëlee du ànd ak sagoom mën na rey ndeyam di ko jur te du ko tay mën na rey bàyyam bu ko jur du ko tay mais xaptal dafa am am xeetu drogue yoo. wax nga loolu solo muy suuf suuf dafa war a xew échange jamono bi est ce que itam doo message euh, euh, président mu jot ci loolu suuf bi day bëri trop ci réew mi. da lay changé souvent. mbaa yëg nga école yi la suuf bi gën bëri. xale yu ndaw yi. école yi. barki Rasulilaay. da école yi. barki Seydina Mohamed mu ci école yi. sama Mariam koy jaay du nekk ci dafa am ku koy jaay sa koñ nga gàddu ko indi ko ci école yi. ndaw dañuy dox ci école bu tàkku mu ñëw école yi. yu ndaw dañuy dox ci biir classe bi te loolu biir école yi moo tax faa ñu vigilant ci école xale yi man maa ko wax. ndax da gis élève boo xamante ne maanaam day jël bu ñu demee bay jaay drogue cent francs di koy jaayee deux cent francs léegi cent 100 francs 200 francs boobu dañ lay convaincre boo ko tàmmee yaa ngi jàll ci 15 jours lu sa mbay teg nga saaj lu sa mbay nga ndax fit bi ngay am. <laughs> bu fekkente ne dangay laal drogue idaani fit ngay am te boo amee fit dootoo amati sago. Ah, lu la neex def loo romb jëm drogue bi daal il faut que président Diomaye vigilant ñuy dugal drogue bi ci dëkk bi ak ñi ko fii def ak sangare yi jaay. <laughs> maanaam dafa am yoo xamante ne ne kii la jagarta yarul dara xale yi dañ koy toog. mànd di jaay te jaay te lii mës nga ko fee gis. Hmm. avant nga fi dégg li rey yu bari ñu koy def dañuy drogué am na ñoo xam ne nag xabtal la. mais buñ ne xabtal bu ci dëkk beeg rawaan bu dugg ci dëkk bi déedéet xabtal dafa am. moo na ñoo xam ne ñoom dañoo war a sang dëkk bi. mooy daan lañ tur dem. xam nga lu ma bëgg. Hmm. na nit ñëpp daw di muti tur. dee gi jeexagul deret gi. Ah? waaw da nga bëggoon a def rek. tul góor ñëpp nañ dem wuti ci. kon jamaanu ji te naan ko ndax xam nga lan moo tax. Hmm. bu ñu wutul tur deret bi day gën a bari ray bi day gën a bari bi ma ko waxee ci émission bi passé dafa mel ne dégg dama ko wax rek. waaw ñu kon nag na gaa yi wut seen i tur gànnaay nit dangay aar nga aar sa bopp aar seen ndax idaani bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax man li am ni xamatuma ci dara ndax li xamatuma ci dara faaw joomaay génne saraxu gëléem yi tant que génneew ko dëkk bii nii la ñuy continuer di dem te lii baaxul ci image yu Sénégal saraxu gëléem rek war na xam fi ñu toll Sénégal la la dafa mel ne Amérique rek dañ ko teg ko Sénégal li daan am Amérique moo am fi dañuy rey di dóor yu mal te dóor tëj kenn koo xamante ne taxaw na di kii yow da ngay gis sa mbokk rey nit nga taxaw ko jëla ko avocat sonn ci moom c'est parce que mbokk la kenn mënu dem bàyyi sa mbokk que paayay ka yow bu la daloon sa mbokk noonu la tax mais dëkk bi fi mu toll nii Iran yi faaw ñu sangee dëkk bi pour fi ay xéewal xéewal génne fa ay sarax da soo kaay ma xamal leen sarax yi bu ñu ko defee ba pare ci prison ba dañ ko war a yóbbu sax Iran yi hmm. ci prison bi dañ ko war a yóbbu sarax yooyu sarax boobu li muy laaj mooy dañuy tuur dañuy rey gileem yi tuur deret bi yóbbu ko ci prison yóbbu ko ci prison bi doy na waar euh, kon euh, président Diomaye euh, ak ministre premier ministre Ousmane Sonko loolu saraxu gëleem waaye fu ñëwaat rek ci fee bi léegi ci rey bi gis nañ ne ki ñi rey Abdou Aziz kenn dafa taxaw muy Modou tey ne man maa rey Aziz lii la ma doon def loolu nee na Aziz da ko woo pour tëddee ko wàllu góor jigéen moo tax mu rey lan ngay wax ci loolu waaw doy na waar ndax dafay mel dañuy bëgg a forcer nit ñi ne góor jigéen dañ koy bëgg a forcer daal di koy def ci xelu nit ñi mais yal na ma yàlla baal man bi ñu ko waxee jaaxal na mais Abdou Aziz la Dabala daray góor jigéen topp du doxinam du waxinam du jëfinam ku dee yàq sa bàmmeel mais dañoo xam ne Sénégal dañoo bañ góor jigéen il fallait que ñu tuumaal ko ne góor jigéen noonu pour nit ñi foog ni Abdou Aziz góor jigéen la du jigéen de jalousie fiiraan mbir mi waaw ndax nga juddoo ci koñ màggee ci koñ yàlla def nga génn ñu di lay dugg ban fekkat nga fi gisati ndaanaan lu dul gis mu doon ndaanaan ku li faj waykat di koy woo léegi nag jalousie boobu moo fi dugg mais buñ ko jëm góor jigéen nañ ko waxta dee est-ce que la kaara Nabou Leye Nabou Leye lu mu am ci aar Abdoul taxaw Abdoul Aziz ni mu taxawoo tey ba ñàkk bakkanam ñu war ko faat moom mu xam ci dara dem nëbbutu tuural nam tey ba bi Abdoul Aziz duñ koy jël mu ngi naan xanaa du dee dee rek Abdou Aziz mooy kan xanaa du dee rek ñëppay bi mu waxee loolu du deewu Abdou Aziz Dabala mais bi. Ah. kuy wax dangay wax ci deewinu. Abdou Aziz Dabala Dabala ndax ne naa nga jël ni tër ko rey ko comme xar. bu doon ko bokkal ndey ak baay du réagir te du waxee ni mu waxee ndax naku lay même bu dara nit ñi dañ ko doon déglu dañ ko doon tiitaroo dañ ko doon saafonte mais moom ni mu mel ak Abdou Aziz Dabala. nit rek la mais su dee woon dee goo xam ne yàllaa ko yóbbu hmm. dañ koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana mais am na dee yoo xamante ne bu ko nit ki ba la ñuy xool mais la mu dafa ñaaw nagu lay hmm. nagu lay benn moo dugal boppam hmm. ñaar moo tëgg boppam ñett jigéen du dugg ci ay gamu góor ak ay complice góor jigéen ca jigéen ña góor ña ca góor ña man su ma la xoolee nga gis nga xaw a indice wallaahi wal xuraan comme man sama liggéey mayuma may dàqe bala may rejeté mais dinaa fexe ba yow bu fekkoon da nga doon def lu bon ma fexe la ñaanal ba nga tuub ba dellu ci yàlla man hmm? loolu dama koy def mais tey jii munoo dem dugg ci ay problème dugg ci tuuxu bi ku ñu tudd rek ku yoon tudd rek parce que dafa la respecté waaw ba pare nagu lay dafa dem protéger ñi nga xam ne ñoo rey pour ak deewu Aziz bi parce que wax di mu wax yëpp du dëgg nee na mu wàcc Aziz dafa feebaroon du dëgg nee na moom yóbbu Aziz këram dëgg ndekete yooyu yëpp dëgg bi ñu rey Aziz nee na mu ngi këram di nelaw te bi ñu rey Aziz mu ngi ci koñ bi. bi ñu ko localisé. boo yàggee def lu bon benn jour ngay xëy rek yàlla sama borom weer la lu kenn nax kenn man jigéen la yaay la am na doom ma xool doomam ci tiktok bi sama yaram daw. ak doomam waaw. li tax sama yaram man su ma nammee def lu bon xool sama tout tànk yi damay dalaat ndax xam nga lan moo tax mënoon naa toog ci internet bi wax fi lu ne weng. su xeeb sama doom wala ñu xeeb sama askan ndax man su ma defee benn bu ndaw rek samay famille dañ may woo ñëpp a moo tax lépp lu may wax dama koy seet mais napp lay dama xool mu am doom bu jigéen te doomam jooju léegi màgg na xam-xam ne moo tax bala mu doon dugg ci lii da war a seetaat te sédd doomam doom nawle la mais tey dugal na boppam ci loo xamante ne man de tey kan moo ko fay fekk ndayam ay approcham mais ñi mu doon àndal ñi ko bëggoon napp lay képp ku ko bëggoon xeeb nga képp ku ko nawoon nawa di nga ko kon nag Euh, nañu waxante dëgg nit ki am na loo xamante ne waroo ko fexe perte nga doon jigéen doon yaay. doon jigéen doon yaay tey foo tourné Nabou Leye nee naa wax jigul bant waxuma laa nga jigéen waxuma laa doomi aadama waxuma laa nga nekk yaay mais Nabou dafa juum. allahu akbar dégg mu wax Nabou dafa juum euh, tey muy koo xam ne dañu ko seet woon la grande laa koy wax muy soxna Mariama mu Serigne Babacar yi mu ngi wax ba mu yàgg mu jël li nga xam ne moo di bépp xaw ma geenu xaw ma geenu xar la mu koy dóor ci nga xam ne moo di béjjën yi euh, mu làmp yi mu ngi tàkk rouge muy loo xam ne dana ci dee gi nga xam ne mooy am ci réew mi waaye rawat na bi Abdou Aziz euh, tey sarax yi nga wax président Diomaye bu ko kenn génnoon pour président Diomaye wala président Diomaye moo ko war a génnee. waaw président Diomaye moo koy génne ndax moom mooy président de tous les Sénégalais. allahu akbar tey su taxawee génn wax ne dëkk bi tey. bu kenn añ kenn du añ bu taxawee ne dëkk bi tey bu kenn def naa nangam kenn du ko def gis na séeréer yi chaque at dañuy def xoy. xoy te xoy boobu buñ ko bàyyi xel mais xoy boobu bu ñu ko doon bàyyi xel chaque nawet tey du am. allahu akbar bu bari du am. mooy sànq yi ñuy def dañ ne sarax day fank dee. allahu akbar day fank ba fank dee te luy fank ba fank dee moom dañoo war a xam ne lii bu ko defee dee dañu lii bu ko defee balaa yi dañu wàññeeku bu ñu ko defee accident yi ci dëkk dina wàññeeku. mais booy xool day gën a takkar naa si ndax saraxu dëkk bi lañ génneewul tey boo doon àtte euh, nawle yi ñu mm-hmm. bëri nañ ne moo rey Aziz parce que ku teg diw ba ñu rey nit rek tey dafa mel ni yow yaay bakkan dafa foor te mu dee wallaahi ku ci tàkk di nga wax dala lay wax loolu doo ko tàkk bés bi ñu demee ba nga jàkkaarloo juge bi da mel ne sa xel mi dañ koy dëpp nga dem ba jàkkaarloo kon policier yi lay àtte sa xel mi day mel dañ koy tuur rek nga dem image nit ki du mës a sa kanam kon ku nekk rek la nga na rek. la nekk est na nekk ci kaso. waaw di imaginer artiste. ñam fay fekk sax ñoo ko njëkk a xoolee bëtu reykat ni jigéen ñam fay fekk ne moom ñoo koy njëkk a xoolee bëtu. assassin moom est-ce que saa su ne image yu artiste ñoo ci moom. bien sûr day ñëw koo xam ne chaque jour yaay nekk ak ku guddeeg bi yaa ko toggal appartement am. dafa am solo man su ma xamee ni su ma déggee ne dee na jour boobu ma ndax ni tax dama añ maanaam miin gi ma ko miin xam nga ma ko xam ma romb la mës ta nuyu rek nga gaañu image boobu day ñëw wax ma la nit dee fekk man nabu dama ko mere te li tax ma mere nabu mooy man dama ko bëggoon nag mais li ma ko mooy dafa taxaw wax ne ñëppay dee oh, kon ak deewee lan mooy dee après mais après mais deewin ba moo tax ñuy wax nabu meetu dee deewin ga Abdou Aziz Dabala dee moom ak Boy Waly beeyuñ ba moo mett nit dee nga sàng ko nit dee nga nëpp nëppal ko nit dee nga woowi ay moo woowi ay mboqam de. waaw bu fekkoon lu normal la rek. Aziz Dabala ay mboqam xam ne Aziz dee na xam na lañ koy. deew na lu rëb sixième six yaayam sixième sens yaayam ko te ay mboqam buñ toogee ñaari fan. te xam nañ ne Aziz mel ñoom ñoom ñooy ne Aziz dee na ndax dañuy dem ci seen kër. xam ne Aziz mi kat yàlla mu ko sàkkoon moo ko jël. mais nag moo woote ji moo leen ko ibbil ibbil sàll ah. te Sadio Ba fara bi nekkoon. waaw kon nag dee kii. ay naam moo dugal boppam waaye. wax dëgg fa ne yàlla Sénégal bu ñu bëggee dee wàññeeku fi nañu wax te dund bala nañu wax te dee peine de mort man bëgguma ko mais il fallait que ñu indi ko Sénégal ko dee gi wàññeeku. allah akbar mbala ku rey yóbbu la ba stade wane la ba ñëpp gis ko rek ñu taal la. allah akbar looloo fi am jàmm. mu ngi noonu tey dañoo xam ne kenn ko présenté waaye tey comme wax nañ ci ak tay te pare ñu ñëw li nga xam ne mooy aar réew mi ak jeunesse bi tey bu dul réew mi président Diomaye bu génnoon sara ñun jeunesse bi lan nga war a wax tey jeunesse bi pour ñu aar seen bopp ci li nga xam ne moo di sarax wala aar bopp ci li nga xam ne moo di tey deew ñaaw deewu yi ñaaw yi. waaw jërëjëf yi man dama ne jeunes yi nañ dem wuti ci tur ndax dangay wax ak nit ñeete loo tax na ñi dina bëtu te nga yor benn un million génnee ko commencé di bàq commencé di fëgg sa ndigg. dëgg naa la bu garaaw. waaw fekk noonu a ngi fa te noonu boobu nu muy def ba lekk sa un million lay wut te bu la mënee rey bu la mënee suul dalay suul bu ma mënee jaay dalay jaay nit ñi nañ dem wuti ji tuur ndax dama xam ne liy ñëw ci deret jeexagul de dee gi tuur deret gi jeexagul Sénégal te dañ toog fi Idaani ma waxaat la ko. atum nawetu ren gi dina tàng ba jaaxal. lan moo tax toujours rek ñu siiw ñu siiw léegi léegi a bëri. artistes yi euh, ministres yi ñeneen ak ñeneen. bayre bu fort da koy def. bayre bu fort. ak waaw bayre kon da wàññi sa bayre bi yow. ngay bu fort da koy joxe ndax xam nga li nit ñi dañ lay jox bayre te duñ la jox lu lay aar. kaar nit ki soo ko joxee bayre da nga ko war a jox lu koy aar. ndax mënoo jox nit da te joxoo ko kaare nga gàtt fa gaaw a day. mbala nga dugg kaso. kaso sax moo gën a sedd xanaa xamoo kaso nit ñi dañoo xamul li mbir mi nekk ci kaso gis nga kaso ñaar day taxaw dee taxaw te lépp a gën dee. moo tax nit yenn saa nga gis mu dugg kaso ñu naan diw dugg na kaso diw na kaso gis nga ni ñu jàmbat jàmbat boobu nag mënoon na ko jàpp ba mu faatu ah. waaye laa ko moo tax nit bu génnee kaso ëllëg day toog nettaliwaat ko mhm. moo tax kaso doonu lu bon mhm. kaso doonu lu bon ñu gis ne en fait euh, dugg na kaso mooy artiste bi nga xam ne moo njëkk a dugg kaso ci li ko wàllum permis euh, barki démb ba barki démb libéré ko mu génn euh, aussi lan ngay wax ci loolu tey waaw kii laaj nga ma ci question bu am solo Sidi Diop dafa sangoo bàyyi te bàyyi ba mu sangoo ñaar la bi bee mala kaso te na mu duggee kaso mooy sauvetage am te dina fi yàgg te sangoon na bayre boo xam bu duggul woon kaso du mës a tàkk mais Sidi tàkk na. na man maa leen ko. kaba bi Sidi tàkk na. ay maasam tàkk na ba ne jëfet man maa la ko wax tey idéal Sidi dañ ko dégg fu gën a kawe te dina wàcc tukki loo xamante ne yàggul. Sidi dina génn Sénégal loo xam ne yàggul te bés bu génne barke Rasulaay bi dañ koy dégg ca kaw. moom Sidi Diop. Sidi Diop ci Allah akbar. bàyyi la wax di nga de. ah ci Sidi. dama gis. waaw ah, waaw dana gis moom. bayre la sangoo te góoru làkkat moo ko jox te bayre boobu noonu moo tax mu dugg kaso bu dugguloon kaso day gàtt. góoru làkkat moo ko jox bayre bi. ma ne Sidi bu dugguloon kaso day génn àddina moo tax di dugg kaso boobu mooy jàmmam te loolu mooy aaraangeem na jàpp ne Sidi tàkk na ba faaw te kenn dootu ko te suulati. waaw benn ndaanaan dootul suulati tàkk na ba faaw dina raw ay maasam. est ce maasam bi tey. leer na la yow loolu la ñu war a wax. gis nañu ko lekk ma suukaram. waaw naan ma café mi mënoo koo dégg xamoo ko. Sidi mos naa koo dégg sax mais déggin boobu dafa gàttoon. Mhm. mais Sidi tàkk na man maa ko wax man soxna Mariama. te loolu waxal ko. Sidi tàkk na ndax bàyyi ba mu sangoo bu duggoon kaso day dee kon nag mu dugg kaso génn ànd ak bàyyi ba faw moo gën. macha allah. ah Ilaah Ilaah ñetti fan kasoom yooyu dina mel ne téeméeri guddi ci moom ndax dina ko taal ñëpp dinañ ko dégg macha allah. allah akbar dégg nga li wax ci euh, kaso bi nga xam ne moom la Sidi Diop euh, amoon tey euh, soxna Mariama xam naa rek dañuy tëj rek parce mais lépp loo xam ne rek da ko war a jox askan bi ci wala seet aussi itam ku nekk xam ne seet bu leer fii am Europe Asie ñëpp lañ lay woo États-Unis ñëpp lay woo ci li nga xam ne moo di set tey wàllum sa seet tey boo ñu doon wax wàllum seet nan lay demee ki nekk Europe nga war ko seetal lan la turam la jox wala maanaam day faral loo xam jox la wala la ngay seete waaw kii nekk Europe bu ma woowee bu ma déggee voix am rek ma maa ngi yow rek bala ma dégg sa baat ma wax la loo xamante ne ay bal doogul seet am na ñoo xam ne dañuy bëgg nga wax leen ci benn seet bi loo xam ne day gudd mais boo ko defee du xaj ndax am na ñeneen ñoo xam dañ ne so mais man nit bu ma woowee ma dégg baatam mën naa ko wax ay bal barki Seydina dina jox turu ma pour Mohamed boo ne allo mën naa la wax li nga sol mën naa la wax fi nga nekk. moo xam ne waaye Mariama yow soxna Mariama si Babacar si. waaw Idaani nee naa lii nii dañ koo fekk suñu kër maam nee naa ku bëgg seet bu leer ku bëgg ñu gis te ku am jafe-jafe sëy mbaa nga am problème këyit mbaa nga am problème. boo xamante ne moom dégg naa yàlla mel kaso sax yàlla xam ne ne mënoo cee mujj boo ma wooyee ma wax la say sarax nga génne ko mu tàkk ne bal. surtout sarax ci daani sarax yàlla suñu borom da koo daganal te da koo wàccee maanaam na nit ñi di saraxe nit am na droit xëy te génnewu sañuy sarax nit génn këram même bu dee ndox sax nga di koy tuur amoo droit te génnewoo mais mais mais am na sarax yoo xam ne dégg naa nga jekk-jekk jël ndox saraxe wala euh, mbiskit nit ku nekk da nga war a saraxu bopp quand même loolu baax na nga xëy génne dara fanqal na la dara mais boo xëyee tey nit kii war nga am sarax boo xam ne i daani boo ko defee sarax boobu moo lay protéger comme ni léemaay di aaree doomi aadama aadama mhm. mhm. kon na nit di génne seeni sarax sa sarax dafa am solo idaani nee naa ñi dañoo war di xam seeni sarax même dee par par at mbala par kii dañaan la bi at bi nga ko war a def bu dellisee weer bi bu dellisee mbala semaine bi bu dellisee boo defee say sarax say mbir taxaw am na ñu bari ñoo xam ne sarax ñàkk sarax da leen tëj da lay um um ñàkk sarax da lay um da lay tëj loolu yomb doo ci jot nga déposé këyit ca ambassade ñu récité loolu ñàkk sarax da koy def tey sarax. sarax dafa am solo. sarax dafa am solo foofu laa ñëwee rek sarax dafa am solo ki nga xam ne tey macha allah dafa am jafe-jafe moo xam feebar la bopp bi metti wala rab dafa bari ci réew mi chaque dix sa bopp di metti guddi gi doo mën a nelaw. loolu mooy problème mu faj bopp bi metti. jëlee laurier ak xobu laurier ak xobu ak karaw boo xam ne borom nga di koy sungoo tàggoo nga ak bopp buy metti loolu day faj bopp buy metti loolu rek mën na faj bopp buy metti. ndax jig na góor mais jigul jigéen. gars yi am na problème ñoo am problème dépôt visa am problème kii Europe. li mm-hmm. daal di ma xamal la lu gën a neex man nit soo dee déposé kayit bu ma jàkka dama naan déposé bu fekkee du baax man la boo déposé ñu résulté ma seetal la rek wax la mais bu fekkente ne dafay baax mën naa laa jox sangat boo xamante ne boo yee kenn du la résulté man naa ko wax man toog dama Mariama bu ma fanaanoo sa passeport boo xëyee dem déposé ñu may la visa par force. ki nga sama Mariama day seet seet bu leer la yor mais dangay fajale ak lu tax ki nga xam ne dafa feebar dëkk tëdd ay at mu ngi jóg waaw ki nga xam ne dafa feebar rawatina feebaru AVC. AVC faj ba mu jeex ci nit ki. AVC mu ngóor koo xam ne góor goo xamante ne maanaam say. mënoo benn bu àgg bal bu àgg mënoo boo xoolee këlëb këpp gi dama koy faj. këlëb këpp dafa bari si. Sénégal mais loolu mooy toj réew mi ma ne xam ne boo gisee jigéen la yàgg nga. mais mu jox ko moom mu essayé ko de. amul problème Idaani. waaw ndax xam nga lan moo tax li ñuy def dañ koy garanti te boo ko jëlee da ngay xam ne ni garanti nañ la kaay ma xamal la benn affaire idaane nit ñi dañ naan masi mais rab day gaaw a yeggloo góor ah. stress day gaaw a yeggloo góor problème yu bari day maanaam day gaaw a yeggloo góor hmm. moo tax góor goo xamante ni toog sa batterie fonctionné wul bala nga bëgg ku la yokkal maanaam yokkale ba nga kontaan yokkale boobu jigéen boo xamante ni boo ko jàppee dafa yokk yaay ku jóg na yokk yokk daa bari ci jóg bi nag non non idaane kaay ma xamal la jigéen yoo naan yokk ay dañuy sóob non non bi am na xam nga fii yokk bi am na xam nga yokk bi am idaane góor ñi ci boppam dañoo am problème te nañ ko wax te di am ñoo xam ne li ñu dafa ndaw mënuñoo satisfaire seen bopp mënuñoo kii mais boo ñëwee bu ma la joxee bu la neexee nga jël ba pare door a fay. kon li may def dama ko gaaraat. comment loolu lu ñuy diw lu ñuy naan la. looy diw la naan bi moom dafa xaw a sensible mais am na loo xam ne mën nga ko booleeg suuf. suuf te tuuti eh, nga suuf moom day tàng moom. Oh! tuuti nga non non ba nga ne supp laa xam ne mën nga parce que supp rek am na xam ne supp yàlla lay àndal am na boo xam ne supp ginaar lay àndal am na boo xam ne pitax lay àndal pitax day naaw rek am na boo xam ne pitax xamante ne idaani neex waaye am na boo xam ne lay àndal mbëtt mbëtt barke rasulullah non mën nga mën nga nga sa bopp ndax yaa nga war a yëg sa bopp góor dafa war a yëg boppam. doo ma ci ma ma jox ko Momo Momo caméraman wàllu fekke mu mu mu effet. waaw Momo waaw mën naa ko jox ndax xam nga lan moo tax xale yu góor yëpp a yoram. moom soog bi dafay fa wàcc rek. xale yu góor yëpp a yoram ne xam nga ndax lan am na ñoo xam ne buñ tiimee jigéen yàgg nañ teer bu yàgg. moo dal Momo dafay war a jóg idaani <laughs> kon dama bëgg xale yu góor yi mm-hmm. képp ku am problème boo mënta wax sa ex mbala boo mënta wax sa sa sa ki ngay ànd sa partenaire mm-hmm. boo ma ko waxee ma fajal la sa soxla kenn dootu la yam kenn la rek dëgër la rek di baax le di baax le ca kaw ca mu ngi noonu tey eh, numéro baa ngi ci bas écran bi képp koo xam ne soxla nga rek foo mën nekk bitim réew Sénégal mën nga wootee am na li nga xam ne moo di whatsapp am na appel normal xam naa dañ koy bàyyi rek mu tàggoo wala mu wax loo xam ne waruñu ko laaj rek te laaj ñu ko mu àggale ko ñu daal di yeewi ku tàggoo moom soxna Mariam moom Serigne Babacar ci borom ceeb couleur gi mu ngi noonu soxna ne sant nga la président Diomaye sarax yi na ko génnee xam mhm. nañ ma woo moo xam ne sarax yi kañ lay génn mhm. ban bés lañ koy génnee ak ban dëkk lañ ko war a yóbbu mhm. ak ban prison lañ ko war a yóbbu ak ban ñu def sarax boobu dëkk bi ñëpp nekk ci jàmm dëkk bi metti na dëkk bi metti na dëkk bi tàng na problème yi dafay bari xanaa xamoo problème bi bu ñu gaawul woon enquête bi gaaw barke Rasulaay beneen bakkan day tëdd ci problème bi moo tax nañ sant yàlla bu baax a baax te julli si Seydina Mohamed na président Diomaye fexe dem ci juróom-ñaari dëkk yu bokkul mu fekk juróom-ñaari nitu yàlla yoo xam dañoo yor daara ñu wàcceel ko kaamil wàcceel dëkk bi kaamil ñaan fi yàlla jàmm sax fi ñaan fi yàlla askanu Sénégal bi ca kaw ca kanam ndax fi jàmm rek lañu xam jàmm rek la xam Sénégal moo tax bu ñu yeneen dëkk yi ñu doon jël exemple wala ñu doon jël def ñu référence dañuy xaw xeeb bu ñu déggee genre problème yi yal na fi yam yal na fi dee gi yem yal na fi rayante gi yem yal na rayante yi bañante gi noonoon teg yi am Sénégal yal na ko fi yàlla jeexal ndax fi mu li ni idaan da ngay xool réseaux sociaux yi ku toog tam sa moroom ku toog jiñ sa morom caga ku toog jiñ sa morom lesbienne wala góor jigéen yooyu yëpp dañ ko war a interdit Sénégal wax ju rafet la ñu war a wax ci internet bi ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi maa ngi dégg maam Ndiaye Savon euh, ak kee ñu jàppante defee loo xam ne deful da nga koy woo nga ko Aïssatou Diop dafa war xam ne maam Ndiaye Savon xëy na lii muy def njaayam la lii muy def liggéeyam la bu fekkee def loo xamante ne jaaduwul mu ko yedd ko mais jullit góor kenn du ko xas mhm. ndax koo xas mu xas la te koo yor sa la motifam yor na sa bu ne weng kon nag wax ji day rafet ñu seetaat li ñuy wax bu baax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu may sant waa Pirip Dakar. Hmm. jërë ngeen mu ngi noonu euh, nay rafet yaakaar naa ku baax ma wax la nay rafet muy soxna Mariama moom Serigne Babacar jataay ci nga xam ne mooy meurtre bi nga xam ne moo am fële ca Pikine ak euh, Abdou Aziz ñu bonk ak Waly waaye rey yu bari mu ne nañ gën a sarax on keroog tey mu amaat. kon euh, mbokk yi mu ngi noonu numéro baa ngi ci woon ba d'écran bi ñu ngi laaj président Diomaye mu euh, jéem a xool li nga xam ne mooy saraxu dëkk bi tey tey mooy réew mi tey jërë ngeen yi ba beneen yoon ak beneen numéro